moom sama nijaay la waaye may bàyyam dèjà ah. dégg nga loolu waaw sama nijaay la it nii booy juróom mooy sama turandoo Serigne Souleymane Ndiaye naa lay nettal lu doy waar Serigne Souleymane Ndiaye bi cheikhul xaw mi alaaji Mansour génne àdduna bañ koy sang fi mu toog la ko alaaji Mansour mi ñu doon sang romb xaw ma alaaji Mansour a garaaw xaw ma Souleymane Ndiaye a garaaw fala ko romb ni ko Mansour Souleymane yaa ngi toog maa ngi dem bàyyi leen ak seen àdduna waaw kon bu toogee fii yàlla def ci moom xam-xam bi mu def ci moom iqtada bi abihi alkaram yal na yàlla sàmm ko barkeel ah sëñ maam Njoogu ñu ngi lay ziyaara waa kër alaaji Maalik ñoo ngi noonu toog Serigne Babacar si ñu lay ziara di la wàcce sa wàccuwaay sëñ bi nag wax dëgg yàlla waxtaan na ba noppi waaye man xanaa de am ko sëñ bi wax na saar bi man na fi ma tollu soriwul sama njàng yàggul xam naa ne ma koy waxtaan ci baa siin mimara liif lam lam acha liif laam raa xablonk miim liif gu aj nuna ra liif laam raa xablonk yaa mima ra xanaa mag ñëpp bokk daara bi jigéen ñaa may aw naan mima ra tabarkàlla oustaz ba daa ubbi daara talamin bisatul ndeysaan mu jàngal xale ba egsi ci mimara mun ta wax mun ta wax mimara mu wax mima ya tabarkàlla ndeysaan bu nee xale bi mi ma ya xale bi ni ma mi ma ya toog ba yàgg mu ne ko waxuma mi ma ya bi may wax bi gaa yi wax laa wax tabarkal la waaye yal na yàlla jàmm xam nga waxtaan wi Serigne Ousmane da yàlla fay gis nga inspiration daf ci am loo xam ni inspiration lañ koy tudde am loo xam ni ilhaamul ilaahiya la dugg ci alquran génne ci loo xam ni boo ko waxee day mel ni tey la alquran doo ko wàcc cëru yàlla la gis nga koo xam ni sa baay daa màndi ba dee booy naan doo màndi waaye ku sa baay mun sa màndi musoo màndi boo téye benn kaas tart ngay xam nga loolu mooy la mooy ku sa baay dund ci leer nga judd ci salaatul faatih judd ci leer loo jublu ci leer dafay mel ni dafay am attraction yu koy xëcc loolu mooy fen ci sëñ Ousmane xam nañ ko bu yàgg ci daara ñu ndeysaan man ba may jàng école seen dëkk laa doon vacances yi yàlla seede na li ma daj ci école dañu ma ko daara je dafa am benn waay ndeysaan fi laay commencé waxtaan yi daa dugg saa yu duggee école bu élèves yi nekkee trente deux trente deuxième lay jël bu nekkee trente quatre mu jël trente quatrième yàlla def mu dugg école daje fa koo xam ne moom moo ko tane ñu jëlee trente quatrième waa jël trente cinquième déwén nga waaj day bàyyi mu lànk ne waaju du bàyyi ñu ko lu tax du bàyyi mu ne ko dootuma am ku ma raw waaye tabaarakallaahu xam naa ni waxtaan xaju fi waaye xoolal baa siin mi ma la gis nga xarful baa xaraf bi njëkk a tudd ci xadatul ilaahiya mooy xarful baa kunna xurufan aaliyatin mutamassikina ala durar qolal fa kuntu fihi anta wa anta fihi huwa fal kullu fii huwa huwa fasal am man aqal hunaaka faddala allahu man faddala ala man fuddila bi yàlla ne ala subi rabbikum xarful baa moo njëkk a génn moom la ruuxu sayyidina Muhammad njëkk wax muy balaa waaye xoolal fi ko yàlla teg mu nekk bidaa yi nekk bunt bi xam nga lu ko waral nuwaara dafa jël tombam yenn ko baa jël tombam teg suuf ñu duma am rifaa yàlla yàlla ni ko yaa tàmbale téere bi bismillahi rahmaani rahim nga ni siin bi mu nekk wismun wa qoliba mu nekk simmun ah bismi xarafa ko jar allahi ilafa ko jar ak rahmaani ak arrahimi tabia moo leen jar jar day ñëw ci ñeenti bërëb jaru xaraf jaru ilaafa jaru tawahum jaru liqtixaam tawarkal la te daara ji daara yi almu lañu ndaw yi waaye xoolal as sukunul wujudi wa sukunul adami kon xarfu saakin boobu di siin yàllaa ngi ci benn bind benn malaaka boo xamante ni siin la tudd xam naa bu doon jëm siin waa doon malaaka baa ngi tudd siin xam nga lan lay liggéey yastaghfiru li kulli saajidin lillahi wa yasjudu lillahi li saajidina musabbihan wa yaxluqu llahu fi tasbixaatihi malaaikatan siin boobu malaaka bi ci yàlla bind tudde ko siin day jéggalul képp ku musa sujjóot ngir yàlla ci malaaka boobu di sujjóot ngir yàlla bu sàbbaalee dafa am malaaka yu yàlla bind ci siin boobu ñooñ ñooy malaaikatu nasri njool màkka laaj nañ ko malaaka yi ñëwoon keroog badar ban escadron lañ bokk ci malaayika yi mu ni ñoom malaayikatu nasri lañ bokk malaayikatu nasri ñi ngi juddoo ci Chine bi taalibe bi jàng ci bismillahi rahmaani rahim ci bâche numéro cheikhul xaaji Maalik ne wala taja bu la jaaxal wa yawmal badri jaa'u na ñooñu junudullaahi ñi yàlla binde ci Chine ak wujudi bokkul ak sujud sukkunul aadami sukkunul wujud yi mooy nangu dogalug yàlla boole ci say pexe sukkunul aadami mooy nangu dogalug yàlla sa bañ cee boole pexe martaba nitu yàlla la nitu yàlla dafa toog ni man de damaa egg ci maqaam la sukkunul aadami dootuma dem wuti lenn waaye tey fii ma toog ginaar laa bëgg a lekk déglu bu baax jógul wuti ginaar dem demul fu ñuy toogee ginaar dem ba dëkk boo xam ne kenn du fa toog ginaar mu toog fa ni yàlla ginaar laa bëgg yàlla def am ku tukki woon indaale ginaar yóbbul ko waa këram fekk ko kër ga mu génn dajeeg waa ji waa ji ni déedéet yàlla waxumoon rek mu jox ma ginaar ma lekk waaye dama bëgg ginaar gi man ma lekk ko te bañ cee laal sama loxo naka la toog waa ji ñëw fekk mu toog mu ubbi gémmiñ gi dugal ginaar gi ci biir gémmiñu waa ji mu ne waaw kay lii mën a am li laa waxoon yàlla loolu mooy asukuunul adami ñu dem ci lan mimara yëguloo ni miim ya Cheikhul xaaju Maalik bii bokkul ak miim yi ngay fekk ci téere yi non gis nga amul benn araf bu yàlla utiliser ci bismillahi rahmaani rahim mu répété waat ci téere yàlla bi alaaji maalik yi bari nañu waaye bekk kenn du ci alaaji maalik ba ca teewaaw muhammad yu bari na waaye kenn du ci rasulullah xaraf yépp ci basmala amul benn xaraf bu ñëwaat nekk nafsul xaraf ci biir alquran nga ni mimara yàlla bind ci benn malaaka boo xamante ni xam nga lan lañ leen tudde escadron boobu almuhaat les éponges ñu nga xam ne ñoom ñooy far bàkkaar yi ida nataqa ibnuka bi kalimatin miim maha jamia sayiatika boo amee doom ngay bu ko daaje mu ni baasin ni mimara yàlla malaaka ba mu bind ci maxwu muy far bàkkaar mooy commencé far bàkkaaru xeet ba gone nga bokk nga teg lan liif yàlla bi mu bindee yi ku ci nekk mel ni malaayika yàlla ni leen xalaxtukum li ibadati naka la ko wax rek xarful liif jóg naaw su jóot ngir yàlla yàlla ni ko comme yaa njëkk a réaction yow laay teg ci buntu kër gi ismulaay adam doo ko tudd te neewoo alif ismulaay adam doo ko tudd te neewoo alif boo ne allahu alif ay jiitu tudd yi ñoom sëñ Ousmane daa yor xam ni ida ma axadu fiddatan saara xaddatan xaddatan fiddatan bu ñu jàppee xeer def ko wurus léegi ismu bu mag boobu alifa nekk ca bunt ba xaw ma ban tur la nag waaye fukki araf ak benn la ah ma ñaari laa ma nekk ñu leen asaxeer asaxeer alhuwiyatu alhuwiyatu xeyru zaatil waaxidi boo nee haa yàllaa ngi bind malaaka boo xamante ni haa la tudd haa haa bi fan lay dellu ci jëmm yàlla gu fàddu ga nga ni waat mu dellu ci waxdaaniyatullaahi laam layinullaahi nga leen ni xaa mu ay alxayaatu duniyawiyya wal uxrawiyya boo jàngalee sa doom xaa mu tombeek malaaka bi bi yàlla bind ci xaa muy sabaal yàlla ci xaa doom jooju dafay am xayaatu dunia wal axira buñ ko sulee deewu wa kaana mayitan fa axyaynaahu وجعلنا bii نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها أحيا بيت بالحاي mu def lan miim miim jooju mooy baatul xaqiqatul muhammadiya tubaab dafa wax ne la terre tourne autour d'elle même la terre est ronde la terre est ronde xam tax ci biir miim boobu la yàlla leen di suuf rondel bi ci miim bi mooy rondel bi conditionné suuf si yéen ma dugg ci benn bi ñuy wax yaa gis nga yàlla bu lemee asamaan ak suuf espace amatul bu na laajee fan la nit ñuy taxaw neel ci yàlla ñuy dem yàlla bind na malaaka boo xam ne yàlla tudd yaa xam ngeen nu mu ah xaw ma ko gaa dañ lay taal dañ lay boyal boo nee boo nee xam nga rek ñu ah man Souleymane xaw ma ko waaye ci gàttal bopp baa nga ci suufu aras tànk yaa nga suufu juróom-ñaar bu yàlla lemee asamaan ak suuf jégeeguñ siraat yàlla day woo malaaka bi ñu wax yaa mu ñëw taxaw mu ne ko tàllal sa benn mbagg mu tàllal ko yàlla teg ci nit ñi ginne yi benn mbagg bi dama tax gisee xale yi jaay prek di dama mbagg damay ay dafay jàpp waaw xam ni ki war a dama ki war a dama mbagg mooy yaa waaw benn mbagg bi lay taxaw xam nga nu muy def boo taxawee def nii man nag yaa bokkuñu sama mbagg bu ndaw bi yàlla teg ci jinn yeeg ñëpp yaa day wër a aras juróom-ñaari yoon ñu doog a jéggi siraat waaye déglul léegi léegi nga dégg kuy weddi diggante sëriñ bi ak taalibe bi le problème mooy Seyduna Ahmad Tijaani bi muy am li muy am dafa mel ni Seyduna Ibrahima biñ ko naan yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima bi koy Jibril di ñëw naan ko yaa Ibrahim allaka xaaja mu ni ko amma ilayka falaa ndax am nga aajo mu ne ko bu nekkee ci yow aw ma aajo Seydina Muhammad a ngi toog di leen déglu déglu leen ma de gis nga bor boobu bi Jibril lebal yonent yàlla Ibrahim bi ñu koy waaj ko safar ne ko ndax amuloo doléance boo bëgg a wax yàlla mu ni ko déedéet bu nekkee ci yow njool màkkaa ngi dégg doléance boobu xam nga kañ nga ko fay Jibril ba ko yàlla convoqué mu dem sidratul muntaha ba jibril taxaw ñor maa ko ni ko afihim misli hada al maqam yatlubu yatluku al xalilu xalilahu fii may baay ni ko ma minna illa lahu maqamun maalum ku nekk am nga stationnement ba war a yem ñor maa ko dox deux pas dellu ginnaaw ni ko jibril la nga doon lebal sama maam ibrahim ndax yew jibril tey allah ka xaaja yow jibril yaa ngi woon sama maam ibrahima ndax am na aajo muy koy waajal ko safara ñëwaguma ci àdduna waaye maa ngi la jégg waaye yow jibril tey man maay dem ci yàlla yow da ngay xaar jibril yow laay waxal allah ka xaaja déglul kon di nga dégg ni na Tijaani bi yàllay takkal maamam xaatimul nubu xaatimul nubuwati ci wetam la ko takkalee xaatimul awliyaa yi waaye ñaari numéro 10 du am ci teere balaa numéro 10 di dugg numéro 10 day génn Seydina Mouhamad xaatimun nabi ina numéro 10 génn Cheikh Tidiane xaatimul awliya numéro 10 dugg poste by poste hmm? ah, ok léegi Jibril lan la wax njool màkka dañu ko lenn rek laa lay ñaan boo demee ci yàlla nee ko na ma dimbali àllaaxira bu saw waa kër naree jéggi siraat na ma woo Jibril ma nekk autoroute à péage déglu loolu rek la Jibril ñaan yàlla na woo man Jibril ma tàllal samay mbagg waaye gis nga tàllal bi Jibril tàllal mbaggam li la umumi min ummati rasulillah sala ñëpp waaye am na loo xam ne xusuusiya waa kër la jawaazuhum kawairal ala siraati mahdum minnatin min maliki mi natan yàlla la soob mu jël ni waa kër Seexuna Tijaan yi min natan xéewalam la min maalikin yàlla moom moo ko moom maalik lu mu jox mamluk xanaa sañ na ko maalik moo moom yëf yi mamluk moo moom mooy ñi ñu moom ki moom li mu jox ki mu moom xanaa sañ na ko kon jéggi gi taalibi Tijaan di jéggi siraat ëllëg nekkul lu war a jaaxal gaa yi waaye déglu alaaji Mansuur alaaji Mansour ne ba nee màkkatal mu karam jàkkaarloog yoor yooru altine njol màkka falaa toog toog toog di jëfandikoog njol màkka di jëfanteeg moom wan jalaa ba wiññi lana sitru xatta zaala maa biyaa maa bayni wa baynal malaikatil fa raaytu maa raaytu xataa zaala min wuddi maa bi xam nga yàlla fan la denc yaa moom tey tey boo demoon mu ne oh il fait nuit yàlla ñaar defal jàmm yàlla ñaar defal soofe ma nga tey jii boo demoon ca aras ci fa la yàlla denc yaa yàlla yàlla defal jàmm yàlla ñu fekkee déwén yàlla yàlla dëgg dëgg jullit gis nga gàmmu gi nañ koy gàmmu am na ñoo xam ne gàmmu gi da leen di derange waaye gàmmu déranger déranger gu leen njool màkkaa leen di déranger ku ñoon màkk dérangé nag di nga dérangé wu àdduna dérangé wu àllaaxira moo la am na ñoo xam ne lu neex daf leen di fat xamuñu ay neex neex ci gàttal sérieusement am na waajoo daa takk jabar jabar ji di jéem a jaay aay xam nga da fekk kuy aay aay lu te armétrique sax dëgërut armétrique sax aayoo koo xam ne dafa mat ndaw si lañ ko takkee woon yëpp mu dem jënd jikko cuuraay waa ji ñëw ci kër gi mu taal cuuraay ba waa ji xëm mu yaakaar ni neex neex yee tax waa ji xëm fekk waa ji ci boppam ay organam moo bëggul lu neex sëriñ si nga naka lañ génnee waa ji ba ci buntu kër gi fekk am na mbaam mu ñu war a sànni ji mbaam mi dee ba nëb naka la maam mi romb waaj rek waaj jóg xam nga loolu mooy lan ku ne xam na ne gàmmu baax na ko ne xam na ne tagg yonent bi baax na ku ne xam na ne alquran baax na waaye am na ñoo xam ni alquran da leen di déranger fa inna tiibal wardi musin bil jual parfum warde rose li muy neex-neex boo ko sottee kaa katar mu dee te teewul parfum di baax kon ki gàmmu yonent bi di déranger teewul gàmmu baax problème bi ci moom la waaye du ci yonent du ci gàmmu moo tax étudiants yi yal na leen yàlla may ubbeeku yal na ngeen nekk symbole de la réussite ci biir cité bi ngeen nekk ndax bi ngeen di dem ci seen réunion yi di góor góorgóorlu am na ñu naan vous perdez votre temps am waaye ci biir faatixi li maa uxliqa perte de temps nekku ci ci biir ifaadati ka min ka ilayka perte de temps nekku ci ah kon yàlla ñaal defal jàmm damay bañ a debale di dugg ci yeneen yi moo tax tabaarakallaahu ma bloqué ko fi ma taxaw rek di ñaan yàlla yàlla na yàlla defal jàmm góorgóorlu bu baax pour ñëw teew ci gàmmu gi yàlla may nañu ci tawfiix gis nga mbubb mi ma sol juróomi gàmmu dem na ko daara jolof laa jógee moom bulal ca jolof di wax di ñëw di wax ba egsi ci Tiwaa ba egsi waaye loolu li koy waral lan la du gagne-pain déedéet dafa am loo xam ni ñun ñoo ko war a dox jeunesse bi mooy liggéeyal suñu xadara li i'laa'i kalimati laa ilaha illa allah waa gars yi ma laa jëm benn affaire ki nga xam ni yàlla rek ko tax a jóg sëñ Ousmane est dina bàyyi dina dugg ci jàkka ji fekk ku julli ne allahu akbar wàcc ay loxoom muy xuloo moom ngir lu tax mangul te en cependant bàyyi na ku toog yi di dam yee ak a bolot te julli jiwul bu ko yàlla taxoon jóg lu jënd ko c'est simple julli lu tax defoo nii defoo nii maa asaf bu nekkoon laa ilaha illallah moo la tax a jóg rek am nga loo yittewoo lul fekk waa ji ci jàkka ji mu tàllal ay loxoom nga ne ko da ngay banque problème bi du banque du tàllal al ixlaasu lillahi mooy problème bi ndax Maodo nee na xaj yashibu aaridul in aaridul shaaba aaridul insaani ma akmala salaasa lirrahmaani nit dina julli ba màggat musta matal julli ngir yàlla yow mi dugg ci jàkka ji ki sa ginnaaw sax xam nga daa xam doom déet loolu def ci jàkka ji te mbokk yi gis nga boo nee allahu akbar taxaw sëñ Ousmane bindkat bi nee na li allahu akbar yi bëri bëri ci jàkka ji mbokk ñoo ñuy dox ah noddukat bi bu nee allahu akbar fekk na ci lal bi lim lay wax bokk la li muy wax ka ne ci jàkka ja saa yi da xaalis ban boor nga jógee. da ngaa waroon tàggoo bi ngay ñëw. gars yi bu ñu xamoon na ma jox xaalis dañu jóg topp la indaale lañu yor. wallaay dafa am lu ma gis rek. waaw kay. sama tànk mu ngi doog a jëm fii. dëgg la. dëgg la. te jëm sama rakk la. macha allah. muy président. président jërëjëf président amul morom bomboy. dëgg la macha allah. bomboy ak kër jëm bomboy. bomboy bomboy. ah la ak Bombay ba ne fële ca Inde. nooto jobaas waaw ah, kay nooto jobaas ah, waaw ah, kay suuf soo dëgg sa tànk waaw asamaan tiim la waaw mosoo fa mooy yàlla waaw loo fa ñaan suñu borom mu nangu ko wallaahi dëgg la yàlla yàlla baax maa doog a teg sama tànk ñaanal ñu yàlla ngir jëmm ji nag alhamdulilah jërëjëf muy dugg si gis jëf jëfinu xaj mm-hmm. ci port ba dëgg muy góor ak jigéen di mm-hmm. jëf jëf boo xam ne mm-hmm. ci ñu tàntal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ma dem bay daanu sama rakk ji téye ma mu téye ma yal na yàlla doon suturaal jërëjëf yal na yàlla suturaal jërëjëf yal na na yàlla defal tawfiix yal na defal jàmm waa sëñ Ousmane sëñ Ousmane nag jëmuma ci yow de jëmuma ci yow waaye yéen yëg ngeen ne ku gàtt dugg aljana sëñ Ousmane ndekete ndekete courte mesure duñ dugg aljanna imaam yaa ngi commencé yokkante ko de gars yi jóg leen bokk. non gars yi gars yi baax na jërëjëf baax na yàlla yàlla barkeel. indi leen ticket yi indi leen ticket yi indi leen ticket yi. defal nànk ticket yi bu ñu ko indee gars yi duñ ndékki fii xam naa fi xanaa xamu leen ni gàmmu gi am na at maa ko doon baas gàmmu gi boobu ñoom ñi nga fi nekkoon ñoom ñi ngi ñoo nekkoon président yi ak beneen grand ñoo ko doon baas maanaam boobu nag nga taalibe bu musa dem Dakar buy doog a dem Dakar fu ñu ko yóbbu baax na ñu yóbbu ñu restaurant argentin. fii laa njëkk a dugg restaurant restaurant argentin am benn waa bu ñuy wax Habib Sow ndeysaan dafa dugg moom bu muy dugg ci dàll ci buntu bi la sumi dàllam jóge daara ja rek ndeysaan ak yar bi am ko ñu mbay si mbay si ndeysaan sama nijaay la laa dugg di nuyoo moom di nuyu étudiant yi waaye ku gàtt du dugg aljanna wax naa ko benn gàmm nag benn su ndaw ni ma ah xanaa ñu wut ay coquette escarpin ma ne ko xanaa mooy sa nekk dugg aljanna ku ok wax naa ko benn su ndaw ni ma sëñ bi yow boo deful sa affaire du dox de ma ne ko je suis pas moche nag wax dëgg yàlla mais je suis pas bourru ah la إن الله خلق آدم على أحسن صورة وهو أطول خلقه وما من عبد يدخل جنة ربه إلا على صورة جده الآخرة بن يرى يبيدك الجنة دام دوت الأمر dañuy sekk loo gàtt gàtt di nga toll lu mu gàtt gàtt di nga am 10 ci kaw waaw. yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla defal tawfiix yi tax ku ñaaw du dugg aljanna bëri na ku taxaw jàkkaarloog seetu bakkan baa melul nu ko neex yàlla bu ñu waree dugal aljanna dañuy retapé waat yi noroon mu noddante ko yi duggoon mu génne ko yi ëppoon mu retaaye ko. ndax ni maam aadama meloon yàlla bind ko mu mel melokaan wi gën a rafet noonu la ñëpp yi melaat doog a dugg aljanna waaye xam nga lu tax ci tijaan yi neex ma ñoom buñ faatoo jarul ñu leen di yóbbu seen dëkku sëriñ xam nga lu tax technologie wax na ko ki la bëgg a yónnee xaalis yónnee la wari wala orange money ngay wuti réseau bokk la ki yore carte gab da ngay dem dugal di jox xar bi rek affaire bi génn suñ kartu gam nag mooy fatih li maa uliqa mooy ifadati ka min ka ilay ka ixaatati nooril mutal sam li nga soxla génn nga def sa poche dem njibbi nga bàyyi sawaay ne mu naan réseau bi ñëwagul tey wari doxul <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa tawajjahu daata yowmin lil buyuti wa qad ra an nabiya yahudiyun alal utumi ذات يوم للبيوت ودق الموضوع قال وحين تقلبهم للبيوت راى النبي موضوع il est dangereux day concentré way yi muy taqallaboo dafa la wax bay du ko jiitu yaxduuna kulla gadaatin aw yaruddahumu xarru dahirati ñan ñooy faayil ja mu ni ahlu taif bi gaa yi seet njol makka egseegul waa Madinatul Munawwara dañ daan génn ba ci buntu dëkk bi di gàttanu ci ñool Màkka moo damu ni taxallaboo découragé woon nañ benn bis bay dellu lil buyuuti nga dégg wa wa wa xiina taxallubihim lil buyuuti qad raa kan moo gis faayil ya kan la yahudiyun maful mi kan la annabiya fan la ko gis xaala kawnihi alal utumi xam nga li ne ci waa ji te yàlla def ko ci nit yàlla koy gis yahut ba ma nga ca kaw sawma di jaamu yàlla waaye gis na leer gu gëndaloog asamaan la leen woo xam nga la la wax naadaahumu qaa'ilan dëggal Maodo qaa'ilan ñu ne Maodo lan la wax mu ne xat laaxa maa laaxa mu ne jaddukum waaw ah, kay waaja mu ne xat laaxa ma ngay ñëw jaddukum seen maam waaw ah, xam nga jaddu day firi waaw ah, jaddu day firi maam suñu arab dafa doy waar damay jàng barki dée ma nekkate am na xaala xaala buy firi dóor na xaalahu bi yadihi pour man xaala wax na day firi xaala bi rësi yi ay ashaara xaala bi rijlihi ay qaama xaala bi yadihi ay daraba daraba day firi xaala xaala da koy firi waa Maodo mu ni xar laaxa feeñ na bi maanaa zahara maa zahara jaddukum ay xaddukum seen muur seen trésor seen texe àdduna ak alaaxira feeñ na Maodo waaw bi ñu waxee loolu lu xew mu ne qaamu qaamu ilayhi siraan fii silaahihim dëggal waa ja ba ñuy jàng bayaan doon nañu jàng ci misaan yi jaa shaqiqu aaridan rumhahu inna bani ammika fihim rimah li muy wax ni mën nga tawkiid in la waxta la ki ngay waxal bu nekkee da nga gis mu am comportement ko xamul li xew mën nga koo mën nga koo tawkiidal maam Maodo bi gaa yi ñëw jublu si ci ñool màkka dafa am ñaari façon bu arab ñëwee ci yow yore xeejam naan la nii mooy pareel boo parewul pare na waaye Maodo xaamu ilayhi shiraan ba ñuy wuyu ci njool màkka fii shiraaqihim yi dañoo jël seen seen seen xeej ya ak seen épée naan ko nii xam nga loolu mooy lan mooy boo ñëwee ñu aar la bokkul ak boo ñëwee ma dëbb la ko xaamu ilayhi siraan fii sirahimi kenn du Seexul nga sëñ Ousmane wax na sànq xilaas bu demee ci kanamu Seydina Muhammad kenn dootu ko jàng ngir bëgg a xam njool màkka waaye yaakaar naan dañ toog ba yàgg ñuy fàttaliku nekkete Maodo ni mu waxoon bakkanu njool màkka ni la mel njool màkka nga ne nañ dem xool fii sirahimi waaw kay xoolal ndekete fi nga bëgg waa ji dem fa faa waa ji bëgg mu dem faa ko gën a wóor am na ñoo xam ne makki wàcc rek lañ bëgg maa la ko wax am na ñoo xam ne makki ñu bañ a nekk candidat rek la bëgg dëgg la am déet waaye ku yàlla ne day falu boo ko bëggee folli yàlla yow lay folli yuriduuna itfaa nuurin kaana allahu muuqidahu fa atfaahum tatmima zaaka jëlilu Maodo mu ni bu yàlla ne damay jël waaji fal ko nga waaj waaji du falu ba tax nga denc waaji yàlla daf lay jël denc la fal waaji nekkuma ci kenn de man xaw ma caisse avance xaw ma caisse arrière damay gàmm yal na defal jàmm yal nañu yàlla may bëgg rasulillah mbokk yi benn benn farataa ngi suñ Ousmane bi ko yàlla digle kenn defu ko ànd ak loolu yàlla tukkuwul kenn wala mu mere la teg ci farata la la wax de boo xam ni bi ko yàlla sante santaane dañoo ñëwaat ci yàlla mi ko yàlla sant nañ la ko lu ngeen ma ko laaj moo juri ci yonent bi xam nga yàlla dafa am ñaari saraatu saraatu bi dafa indi illa bi tax mu def ko am boo xam ne indiwul illa bi huwa alladi yusalli alaykum lu ñu teg wa malaayikatoo pour lan li yuxrijakum ay min zulmati al adami ila nuuri wujudi wa min zulmati shakki ila nuuri yaqini wa min zulmati lkufri ila nuuri tawxidi wa min zulmati lbodi ila xadarati lqurbi wattadaani bokku leen nag inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ba léegi yàlla moom moo jël loolu mu nekk faral bu mu faral njol màkk yéene ko julli ga mu julli ci yonent bi waaye neewul lu tax mu def ko ci njol màkk waaye ñun ñi mu bind ngir njol màkk bi suñu jos waxte dafa wax ni yuxrijakum mina zulumaati ila nuur yàlla yàlla yërëm yàlla ñu fàkk déwén ku def examen yàlla na nga am man na fi ma doon defee examen wees na benn examen rek laa am fi toll nii mooy examen ñaan yàlla gudd fan bëgg ngeen ko yal nañu ko yàlla defal wér bëgg ngeen ko yàlla defal yal nañu yàlla may santé de fer waaye bu ñu fi jógee yal nañu yàlla musal ci lan fer ci barke Seydul Wujudi yàlla ñu yàlla may ay milliards waaye milliards yu mu bëri bëri yàlla bu ci yàlla toxal milliards ci barke Seydina Muhammad asalaamaaleykum sëriñ bi def naa li ma santoon de jërëjëf waaw kay mu ngoog yow jërëjëf jërëjëf Souleymane kontaan nañ macha allah kontaanati nañ